wa rahmatullahi wa mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu soon na seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci Thierno Bocoum ak kii ñuy wax Bougane Gueye Euh, kàddu yu ñu yëkkati te jëmale ko ci Ousmane songo wala ñu bind ko en tout bu en tout cas <laughs> ñu jëkkal ma français bi bu fekkee dañuy wax ci Thierno Bocoum Thierno Bocoum moom dëgg-dëgg euh, da nga xam lan la bëgg politique tamit politique yi tamit jeexal na ci xanaa li ko dese mooy ñu xam ne mi ngi fi mi ngi fi yenn saay bu demee ba fàtte ko mu yëglu ne mi ngi fi te yëgloom boobu. fi ko nit ñi di gën a xaar ak fi nit ñi di dégloo wax ji leen itteel ak ji leen fulaw ak ji leen ñor daanaka duñ ko fa génne te loolu mooy fan mooy réseaux sociaux yi te moom yaakaar naa ne ñi koy jàllaleel ay xabaaram pour askan wi ëpp jot ci mooy rajo yi wala télévision yi yooyu nag wax yàlla nit ñi ñoo amatul jot pour sànq ci seen temps Euh, te jàpp naa ne foofu lay jàllale ñi koy jàllale sax jàllale wuñ ko ngir yàlla dañ koy jàllale ngir mottilee ko ay xabaar ndax duñ am xabaar yu leen kii te euh, li tax ñu koy gën di jàllale mooy loolu dafa doon fëwër ci ñoom ndax ñoom luy xeex usmaan songo ak luy wàññi dimension ak luy xeex état bi loolu euh, nit ka wax ja lu mu ñàkk-ñàkk solo ki koy wax lu mu ñàkk-ñàkk solo faw ñu jéem koo réyal li ñu jéem koo réyal mooy mu rëy ci nit ñi wane ne Ousmane Sonko am na kii ndax gis naa ñuy jàllale ku mel ni Fadel Boro <laughs> Fadel Boro di wax ne jumaay na wàññi tukkee mbéeg fi muy dem dañ koo liggéey la wala dara jumaay tukkeegul benn tukki bu mu def amagul jumaay dafa dem di dox ay relation yoo xamante ni ay nit dañ koo lebal njëkk ak teraanga mu jug di leen ko fay ñooñu mooy ñan mooy réew yi ku wër di réewi Afrique biñ koy fal di ko defal kiyam serment ñoom ñëpp danoo dagg ay paas danoo bàyyi dagg avion génn seen réew ñëw toog concentré wu pour féliciter ko ci ndam li mu am muy ndamal Afrique di ndam loo xamante ni Sénégal mosu ko am président yi wër fii yëpp ñëw te ñoom ñi ci ëpp ñëpp am na ci yi ko wër ay coup d'état jote am réew moom mu jote ko ci démocratie bu rëy ñu ñëw doon ko féliciter ak di ko ndokkeel ñooñu mu war a demaat ci ñoom pour toog delloowaat leneen jéego yi ngeen doxoon pour ñëw dama leen di delloo siwaat jéego yooyu di leen wan ne leen Sénégal bi euh, seen Sénégal la na mu amoon relation ak yéen seen diggante yu ko gën a baax moo fi nekk bi mu demee Gambie wax na ko nee na ko relation yi nga xam ne moo fi amoon day gën a yokk xañ na nit bi tuuti na mais am na force wax ko ne Macky Sall xañ na moom daan tëddi nelaw euh, Gabriel bi nangam ak nangam baax na boo ko gisee di nga technique yi mais fii eh, jaan sew na waaye dangar ngi ci biir ne leen relation boobu bu ko gën mi ngi ci biir ndax sama yéene ak sama xalaat ak ni ma sama réew fiole mais <laughs> bu fekkee ne rab bi dafa doxatul wala <laughs> yanaamaar nit ñëpp dañ ne yanaamaar <laughs> da yàlla bu dikkee ne day joxe te Fadel Baro xam nañ fi mu nekkoon ci bugaan la nekkoon yaakaar naa benn bi ci des mooy Cerno Bokkum Cerno Bokkum dëgg-dëgg yëg ne buy wax te boo ko mu askan wi dafa am lu ñu ko lebal ñun ñoo ko faloon député mu nekk député bëgg a laajaat beneen yaakaar naa moog Idrissa Seck Idri fal ñeneen mu gedd démissionné ne bàyyi na ci Idrissa Seck buñ ko xamee Idrissa Seck moo ko jox pouvoir moo ko jox faveur ba nit ñëpp xam ko fan la toj jàpp naa moom li gënoon ci moom mooy mu wuti baasu politique baasu politique bu fekkee jàpp na ne. mën naa incarner dara ci kaw sénégalais mu wuti baasu politique mais politique du ay plateau ay bind ay ci Facebook bi wala wax di critiquer loolu jàpp naa ne <laughs> euh, ñoom Xaadim Sàmb ak ñoom Mbay Peex ak ñooñu ñoo ko ñoo ñoom ñoom ñoo ko war a def ndax ñoom ñoo ñoo war a di wax yu mel noonu mais en tant que koo xam ne da ne homme politique nga am na looy laaj def fi coalition coalition bi nga defoon ñu bare bari jàpp am ci yéen kii jàpp ne mooy kii nit ñi wan leen ginnaaw ngeen incarné woon ne ñun ñii en tant que man Thierno Bocoum en tant que Alsaan Thierno Alsaan en tant que Abdourahmane kii ñun mën na nanoo am dara kon nan dem ci askan wi ngeen dem askan wi en tant que yéen benn personne yéen ñeenti personnes yu toll noonu ci personnalité politique mënu leen am sax benn député bu kii Pape Djibril Fall ay ay nangam ñu fexe ay Pape Diop mi ngeen fexe ñoo ñu am kii yéen mënu leen ko boobu ngeen war a xam askan wi fan lan tollu ci yéen. fan lan toll ci yéen Thierno Bocoum vraiment boo déggee muy wax sax da ngay yëg ne euh, wax dëgg yàlla moom da nga koy classé ak Bocoum waxu waxut ci pour pour lu baax wala nit ñi jar mi day wax ci benn en bu muy en boo xamante ni nit ñi yàlla moo leen fi teg xëy na nag Ousmane Sonko benn bombardé bu mu defoon wax ne ku woteelut yeewi ak euh, kii euh, ñëpp Macky Sall la campagne bomb boobu dafa dal dafa dal Ousmane Sonko moo àgg foofu ci nit ñi jamono yooyu muy xeex moom bëggut a nekk député mënu koo nekk sax booba Thierno mii mu ngi bëgg a nekk député demaat assemblée <laughs> euh, Abdourahmane mi ngi bëgg a demaat assemblée kële mi ngi Abdourahmane bi mu demee ba xool ne lii mooy solution donte moom ci ñi gënoon a tontu usmaan songo àggoon na ci Ousmane Sonko day fen ñi ko war xam na ne day fen moom sax xam na ne day fen xam na ne nee na tey mi ngi nii ci wetam Ousmane Sonko di ko xëyloo di ko wax. Euh, Abdourahmane war nga dem te Abdourahmane ku ne xam na ne njàngam ak personnalité ak kii bi bi mu demee ba yëg ni ñii ay gone yu mën a liggéey leen te it am nañ ambition dafa dem ànd ak ñoom tafu ci seen ginnaaw mais bu fekkee na nga bëgg taxaw foofu di <laughs> wax euh, kon yaag yaag yaag Abdourahmane kan moo ci yéen a àndoon ngir am lu ngeen bëgg bokkoon benn coalition bokkoon vision ndax. Abdourahmane moo nekkul ci kii wala yow yaa yaa yaa nekkul Abdourahmane jàpp naa li mu bëggoon mooy réew mi développé réew mi sensé bi mu yëgee ni kii ko mën a sensé dafa dem tafu ci ginnaaw ñoom moom defoon na yéeneem def pas-pasam defoon na yéeneem def pas bi mu bàyyi ci Idriss Seck Idriss Seck boobu ñëpp ko bàyyi mu xam moom mu doon intellectuel xam ne Idi du nit ku ku ku a àndal dafa teela bàyyi ndax parce que dafa yëg ne ànd ak moom campagne jàppale ko ngir mu kii te yow deux mille dix neuf jàpp naa ne delluwaatoon nga ci Idriss Seck <laughs> pour ndax jàppoon nga ne booba xiin woowu di ñëw dina taw mooy Idriss Ida Idi deux mille deux mille dix neuf defoon nga ne moom kenn mënut a xañ réew mi Idi te bu Idi fal woon faaw nga jàpp xañ ne di nga am benn poste boo mën di toog. yooyu nag sëñ bi bugaan moom dëgg dëgg da nga koy da nga koy ñeewante man man wax dëgg yàlla jamono bi ñu toll lu jamonoy mere bugaan lu jamonoy xas ko jamonoy ñeewante la ñeewante. bu doon ca jamono yu yàgg yu mag ñi mag ñu jëkk ña dañuy wax ni kii dañ koo xabtal loolu la mag ñi daan wax daanan gis yuñ jëf-jëf jowam dan kii dañ koo xabtal ndax yii muy wax ci Ousmane song Ousmane Sonko moom ba ñu dem fële fële nga xam ne mooy ensemble loi bi may na ko du quatre-vingt-dix jours la ko may pour mu mu dem may na ko mu toog jël temps ba këram muy mën a dem hmm? demal song Sonko demal ensemble mooy li nga ko yéene <laughs> mooy du yéene bu rafet mooy Ousmane song li nga ko yéene mooy assemblée am fa boo xamante ni bu demee lépp lu mu bëgg kii ñu mën koo jàll te jàpp naa loola moo jug moo jig Ousmane Sonko ñàkk demam waxul ne du dem te Ousmane Sonko jàpp naa bu demee la mu bëgg ci député yi dina ndax député yi lay seen sens moom mooy lu Ousmane Sonko bëgg ñu ànd ceeg moom ndax bu dul loola dañ fay jóge Ousmane song teg fa ay niti boppam ñoom nag rien ñoom ñu toog fa nag di mën a fayeeku seen i solde ak seen i indemnité seen i <laughs> per per joom ak yooyu ñuy am jàpp naa ne duñ ko xañ seen bopp xam nañ ni fii nu toll moom bu élection amee yu député Pape Djibril Thierno Alsaan ak Pape Diop ak na bokk mbokkaan na beneen coalition yooyu yëpp député du ja am Ousmane Sonko la nit ñi jox député loolu moom jàpp naa ne moom <laughs> xiin xiin taw xiinut taw la moom loolu moom ku ku koy nattable sax moom da nga xamut nawet bu ko defee Bougane laa doon wax. Ousmane Sonko taxawut ne du ma dem assemblée kon kenn mënu koo condamné yoon it mayu ko forcé wu ko ngir ne ko demal fi mu toll ndax trois mois jot na da ngay dem ndax loola ñi jàng te xam ne nañ dindi woon nañ fa loolu kon nag dañ koy teelu bàyyi ko moo leen gën a bëgg fuuf réew mi développé moo leen gën a am yéene ci réew mi li mu daj benn sën bu mën a taxaw ne da ngay kii bugaan bu fekkee ne dafa bëgg doon benn opposant bu fi nekk opposant da ngay da ngay da ngay doo opposé wu ci ay ay coow gis nga ñii dafa am ku wax wax ju am solo joo xamante ni ki ñuy wax góor xuma góor xuma xanaa ñun ñëpp ñoo ko xam man ko dalee dégg ci rajo yi muy défendre moo jiite euh, chauffeur seeg lan la ci kii ak yooyu yàgg na ku nekk xam na ne li mu jiite moom expérience bi mu ci am ak compétence bi yéen ñi amu leen ko ci politique li mu am compétence ci xam oto xam ñooñu oto xam loolu yéen ñi xamu leen ko ci politique bërki dem dama ko dégg mu wax wax ju am solo ci mu ne man donte maa ngi jéggulu askan wi donte man su ma demee ba yëg ne man maa am argument yu leer waaye ñi ëpp sama askan àndunoo mu damay wëlbatiku àndaat ak yéen ndax man askan wi lay xeexal Ousmane Sonko mi gis nga opposé ko fi mu toll bul jàpp ne Ousmane Sonko askan wi nga opposé wu askan wi nga opposé wo xoolal ñi taxawoon mbulaase ñii di jaay fëriñ danoo taxawoon ne duñu yokk duñu wàññi ñoom danoo mbëlbatiku ne fekk si nañ gouvernement bi du caaga ne gouvernement bi rek lan ko amal mais askan wi lañ ko amal askan wi tey mbulaase yooyu di kii bu askan wi xëyee booy leen côté dem di ndékkee bañ a dugub <laughs> te loolu lu yomb Ousmane Sonko la <laughs> xëy na man léegi mburu dugub daal laa xëyoon di ndékkee ba mu koy xadde nit ñëpp moom la doon xadde bu xëyee ne moom lay ndékkee ndax ñoom seen seen kii du daanu dafa am nag politiciens yoo xamante ni pour Ousmane songo moom tudd turam loolu way nga naa tudd turam may na ma daraja waaye dalay may <laughs> da nga ciy jàpp ni kii waaye Ousmane songo bu ko taxaw buntu këram <laughs> xam naa bu ko yoon taxaw buntu këram rek taxaw nii yor ab soccoom di def nii bu xëyee gaa yi ne waaw xool ko rek buntu këram lay taxaw di soccu soxla bu taxawoon buntu këram taxaw di lire journal ñu ne xoolal bu taxawoon buntu këram <laughs> ne day fubal ñu xoola Ousmane Sonko ñu fal ko nii kenn gis ko muy nekk naa day fubal day naan man daal la yàlla may bëri xam naa war na nag yenn saa yi bu génnee moom def loo xamante nii moom eh, man daal fan yi bëggoon naa mu génn rek toog génn génn toog buntu këram jaawale daal lii nii <laughs> sol bi bu góos bi comme noonu Moussa Ngom daan sole dàll yi mu sol xam naa bu xëyee suba teel ñëpp Ousmane Sonko jël na dàllam yi jaawale ko sol bee sol nangam <laughs> réew de presse <laughs> yi débat yi ak sëñ Tuubaa Mbàkke bayre moom ku kuy kuy nattable yàlla mën na koo jox nit Ousmane moom ni ko yàlla jox ci bayre yàlla na ko jig te yàlla jig na ko yàlla far na ko ci de yàlla far xam nga yàlla dalay jox euh, bayre jox la euh, maanaam force jox la euh, ak ak bëgg waaye li koy kii mooy décision décision muy gëm-gëm gëm-gëm nag ku ko mën a contrôler mooy gëm ci biir ak ci biti li nga li ngay wan ne ni ci biir ci biti na nekk ci biir boo gisee addis bii bokk na ci addis yi ëpp doole yi gën a am doole yëpp am na waaye bu am na bu am doole la ci ci ci doomu aadama innamal bi binniyaat maanaam loolu ni mu amee doole sax dafa jéggi gis nga yéene li ngay def te amoo ci yéene ju sell amoo ci yéene yéene woo ko dafa mel ni gis nga boo yéenewut dañuy tegg euh, maanaam day mel ni mbir mi dafa dëpp woon euh, dafa féete woon kaw ñu dëpp ko tey nan dem ci yéene jógal fi nga ne da dem màkk nga yéene rek ne damay dem màkk yéene woo ne damay aji boo demee màkk dañ lay jàppe koo xam ne day tourisme tourisme la maanaam la jàppe ko aji boo yéenewut duñ la jàppe woon taxawal fii nga kàbbar nga ne ni allahu akbar yéene gis nga boo jullee ba noppi xam nga lan leen dañuy wax ne ak kii day dafa am sport bu bees bu génn bu muy def benn sport jógewaatal foofu demal ci koor weeru koor jot nga bëgg ne da ngay woor yéene woo ko wala nga yéene woor suba sa yéene woo gis nga boo noppee boo xiifee kii dañuy wax ak ah kii am day régime day def régime <laughs> régime lay def loolu nag ci la booy wut politique na yàlla rek tax na gëm-gëm rek tax na pas-pas rek tax na sa réew rek tax moo tax bugaan moom dëgg dëgg man dama koy ñeewante man bokkuma ci ñi koy di ko di ko kii fan yi daal moom waxtu ñeewante la ak ñaanal ko mu orientation mu dellu si waat beneen bi ma koy proposé turu turu kiyam bi turu muumaam bi na ko dem soppi waat ko na dem soppi euh, euh, kii aboo jaalin xam nga lan moo ko lor genn wàllu turam mais muumaam bii li ko lor mooy mu ni mu ko tudde mu ko tuddee